mbokk yi ñu dellusiwaat ci seen jataay bi tey ñu ñëw ci guddig ñaareel bi guddig ñaareel bi sëriñ son bu Mbàkke wax na dañuy jàng faati dinañ ci julli juróom benn rakka juróom benn bu ñu jàng ci faatiya ak ina axtay nakkal fukki yoon ñu baamtuwaatal leen ko guddig ñaareel bi juróom benn rakka lañ ciy julli rakka bu nekk faatiya lañ cay jàng ak ina axtay nakkal fukki yoon ñu sant leen gërëm leen yàlla na yàlla defar seen i mbir te defar suñu mbir te nangul nu nangul leen ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaman maadudat ya xayra dayfin ata bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat tahaati wasadadi